asalaamaaleykum wa rahmatullah téléspectateur Equivox TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar comme ni ngeen ko xamee rek di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ko sàkku si yéen di leen baalu ak si weeru koor wi saxru ramadan comme niñ ko xamee di ñaan yàlla mu nangu ñu suñu koor barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di leen nuyu fu ngeen mën nekk rek tey nag bu ngeen gisee fi ñu nekk yaakaar naa ne ah wala image yi ngeen gis ki ñu seet si kilifa la yàgg nañ ko seet si nag li tax ñu koy seet si nag bokk na ci benn mu nekk doomu Sénégal boo xam ne nii yaakaar naa ne ku ne ràññee na ko par rapport ak li mu yor di ki liggéey muy lu jëm ci wàllum autokit muy directeur bi muy ma Macoumba Diouf di meeru Lat Menge mais tamit nekk nit boo xam ne du cosaan la bu ñu cosaanu Sénégal nag li ñuy jëkk xalaat mooy lamba loolu bokk na ci li tax tey ñu seet si ko parce que yaakaar naa ne samedi ji ñu jëm ca mairie Patte d'Oie am na loo xam ne ni mook Bamba Mbuub mi nga xam ne moom moo jiite li ñuy wax FILS maanaam daf ko ko jagleel ñu war ci maanaam partenariat comme ni ko tubaab di waxee ci lu jëm ci mbër yi nu ñuy def ba mbër yi am métier te defe naa ne mbay tamit amul lu ko ëpp doole ci am réew tey nag ñu seet si ko bëgg waxtaan ak moom ci loolu nga xam ne nii moom la war a seq ak Bamba Mbuub moom docteur Macoumba Diouf loolu bokk na ci waaye tamit duñ ci yem ndax ku ne xam na ne combat amoon na fi bu yàggul ñaari mbër muy Lac de Guiers ak Eumeu Sène mais la ca neex yàgg maar mooy moom ku ne xam ne diggante ak Eumeu Sène ndax dégg naa sax mu di ko gërëm après làmb ji waaye tamit soxnaam di Louis Senghor ku ne xam ne diggante mag Lac de kon mu nekkoon loo xam ne tamit <laughs> loolu faw ñu waxtaan ci ñoom ñaar nuñ dundee combat bi yàgg maar euh, docteur Macoumba Diouf maa ngi lay nuyu di la ziar. Mhm. di mhm. bëgg ci dajewaat ak yow. merci beaucoup li ngay def macha allah. merci. yow ak groupe yëpp. Hmm. ñu leen di delloo nuyoo. Hmm. di leen dara jàmm di bëgg ci dajewaat ak yéen comme ñoo ko waxee. Hmm. waaye di nuyu bu baax seen internet yi. docteur yaakaar naa ne samedi la ñu wax muy samedi bii ñu jëm ki nga xam ne moom mooy Bamba Mbuub yaakaar naa ne am na loo xam ne war nga ko seq ak moom ci lu jëm ci wàllum la nga yore muy wàllum mbay bu ñu nee mbay nag mooy horticulture defe naa ne mu bokk ci benn muy démembrement bu bokk si ministère de l' agriculture defe naa ne tey sa diggante ak Bamba Mbuub wala loolu loo ci mën a leeral Sénégalais yi ci loo xam ne war ngeen ko mën a seq mu mel ni partenariat wala mel ne kii noonu. jërëjëf euh, Babacar kontaan naa bu baax ci sa laaj boobu effectivement Bamba Mbuub euh, kuréel googu ñuy wax fiis mhm. nga xam ne di ko yëkkati mooy favoriser wala boog yéwénal mhm. insertion mhm. bu lutteurs yi Mm-hmm. maanaam yéwénal seenu mm-hmm. mën a am ci lu ñu jàpp mm-hmm. ginnaaw làmb ginnaaw làmb moom ci loolu lay yëngu euh, muy xale bu baax xale ci waxin ndax lu def ak leeraay ak rafetaayu doxalinam loolu xale mënu xale la ci at waaye da di mag ci xel ak ci yar ak ci doxalin am jàmm nag ak ñëpp. macha allah waa ahlu lamb ni ma ko mën a waxee. Mhm. Euh, ci suñu njaboot njabootu Sénégal laa bëgg wax. Mhm. fi jógoon dem bitim réew muy Italie ak yu ñu mel. Mhm. ci la bokkoon décidé boppam ñibbisi. ma jàpp ne moom ci boppam rek moom Bamba exemple la pour xale yi. ñibbisi pour euh, wane ne dafa wuti doole rek waaye lam ci toppoon yëpp fii la ko investir bokk la ci ci biir lamb kon vraiment Bamba su ma doon wax. te fii la ñuy. fanaan xale bu mmh. jub. Mmh. xale bu baax. Mmh. dinaa ñu am yéen nag àndante ak moom. ci li ñu gëm. avant moom mu ciy jëw. avant mu ci ñëw ñëwaat léegi. li ñu bëgg a liggéey ak moom. ba ñu ko gëmee xalaat ko li ci wax. boobu xamuñu sax bamb. dëgg la donc xam nga loolu kon boole nañu. beneen bi mooy mu jëm ci ndaw ñi. kon xam nga loolu boole nañu. bien sûr yéeme na. la kon bu yàlla dogalee président joxe nañu bopp ndaw ñi contexte far dikk ñoom ñu ëpp ci population bi ñoom ndaw ñi jafe-jafe xat-xatu jamono ñëw am luñ ca feeñal ci jafe-jafe yooyu ñuy dund tey soxla bi bokk na ci soxla yi bopp bokk na ci ci jiitu mooy trouver ñu bëri ci ñoom wala ñu ëpp ci ñoom fu ñu dugg fu ñu dugg ñuy wax ndaw ak métier kon gis nga ne tomb yi ma boole ci mbir mi mu ngi bëgg a bari. dëgg la donc ñu toll waxtu baral dox bi ñu doon dox ci wutal ndaw ñi xëy partenariat boobu it teew. <laughs> un métier waaw. kon li nga ci bëgg a génnee ci sama euh, wolof yu séeréer yi. Mm. ndax déggu ma <laughs> wolof waaw. Mhm. li nga ciy mën déggee mooy xanaa kon làmb. du métier hmm. foofu lañ dee métier du bu yàgg. Père Max Mbargane ne du métier tegandaay la. moom loolu lay wax. kon bàyyi parce que mhm. loolu laa gëm. waaw dama leen doon bañ a frustré. non loolu moom. <laughs> mais làmb bëre. du métier tegandaay la Père Max Mbargane loolu lay wax te yor nay mbër di leen na di leen utal ay komba te nangu na baat bi nga wax moo ci ma ci moom laa ko njëkk a déggee. excellent. Mm-hmm. kon su ma juumee du loolu. Mm-hmm. comme du métier nag. Mm-hmm. tegandaay la. mais tegandaay mooy ndëgër laay rek. ndëgër laay nag. dañ cay basé. pour jëm ci leneen. pour jëm ci leneen. wala boog nga jàppandi ci. di wut leneen. kon comme loolu la. il faut jox. mbëri métier man nag xalaat bi bu ma koy am boobu wax naa léegi ne mm-hmm. boobu xaw ma xamoo sax bàmba dëgg la ma profité pour wax ni mënu mm-hmm. ma ko fàtte mukk mm-hmm. taalibe suñu Abdou Karim la borom Karimal Axlaax dëgg la di kenn ci euh, euh, kenn diine yi kàngamu diine ci Sénégal dëgg la ak sax ci àdduna sëñ Abdou Karim moo mhm. moo la ko xéewal askay moo dox diggante ba aha dëgg la macha allah dëgg la sopp na la ndeysaan <laughs> ngeen toog <laughs> aha daanaka ci ñi raar ñu dëgg la askay mu traitement xam du ma ko mos a fàtte mu dëgg la marqué na ma lool dëgg la yàgg kay ndeysaan ba am na yu ma naan bu soobee mhm, ak ñaan ma mot ci wàllu mbéy amin ak mbiri naal ci tool yi foofu ci tool yi donc loolu bu ma koon fàtte mu mhm. di di di galas sëñ Fallu nga nga xam ne bunt la ci sëñ sëñ mhm. dëgg la euh, dëgg la ket ci tubaab mooy di ko laajal. dajaleel ko dara di ko dajaleel lu waaye man diw mooma baaka hmm. boo dàqoon ay at ci kanam hmm. ci ginnaaw hmm. daani sax ba léegi taarix la ci laam dëgg la bëggal nañu ci maam ba tey bu ñu bëggee wax ak mbaru tey ñoom lañ leen di siteel comme exemple exemple bien sûr. ñu ne kooku bu ñu ko dajaleelul du faju du faju mhm. ma jàpp ne. Mhm. ñooñu kenn mérité wul loolu. déedéet waaye ñooñu ko. Mhm. day daw sa yaram day daw sa dëgg la. métti ma lool. am nit ki am na fooy yóbbu nit ñi. pour man teraanga rek nga mérité. dëgg la. ma jàpp ne loolu. Mm-hmm. bokk na ci bunt yi tax loolu am mm-hmm. mooy fi ñuy nekkee seen digg doole mm-hmm. cachet di jëw macha duun lool dana na yokk fa ngay xalaatee jël lu ëpp walla lu gën a am solo ci cachet yooyu investir ko ci métier Babacar métier man métier yi mën naa bari bien sûr parce que ba nga mu ngi koy def ci afru ma ne li ñu naan def nii koy def ak ñoom ci garde rapproché. garde rapproché bien sûr waaw. maanaam assuré sécurité yenn kilifa yi. Mm-hmm. wala yenn bërëb yi. waaw loolu it métier mm-hmm. leneen. Mm-hmm. na doon métier rek. mais man comme man doomu béykat. dund ko. jàng ko. di ko liggéey. mënu ma leen a xiir ci leneen lu dul. mbay dëgg la. far nag mbay bu doon tombé it loolu la. Mhm. moo fi xeetu yëngu bi nga xam ne Babacar. Mhm. mën nga ciy jël muy limu ci ay nit yu bare bare bare ay millions yi millions te te te xam nga kañ la ne mbay mi fees na mbay mi fees na waaw mënatuñ jël. kenn mënatu faa dugg. dëgg la. mbay moo yaatu ginnaaw kon. exactement si Babacar. Mhm. wax nga wàcc. ma ne kon mais nañoo xeet ci mbay. waaye yooyu rek taxul mm-hmm. la tax dëgg-dëgg mm-hmm. man cosaan laa convoqué dañu ma daan interview fii ci làmb yu ma daan pare ne may rek mm-hmm. làmb ci man li ma ci fàttaliku waaw xëy na du mag moom waaw mais man li ma ci fàttaliku def naa yow mii ko tontu <laughs> waaw li ma ci fàttaliku mooy li ñuy wax ci tubaab fête de la moisson de la moisson waaw da daan nekk loolu am na mooy feetu bu ñu ñororee wala bu ñu góobee bu ñu góobee waaw loolu dëgg wala bu ñu deqee. wala bu ñu deqee wax nga dëgg. maanaam feetu. liggéey bu yeggal. ba yegg waaw liggéey ban mooy liggéeyu mbéy. mbéy. cosaan. Mhm. ca démb. njàmbaar. la doon feete. waaye njàmbaar ci lan. Mhm. ci mbéy ci mbéy waaw. ki bay ba pare. kon mbir waaw. ci ñu jël métti mi. waaw ci li nga xam ne moo leen moo leen moo moo indi. Mhm. lii ñu tuddee ñu bëgg a tuddee métier xaat. bu de mhm. def métier te du métier. te du métier métier dëggantaan cosaan bi. Mhm. muy mbéy mooy mbay duñ leen ca delloo. waaw delloo leen ca mbay ma. waaw ma yàgg di wax ne. mbëri dañ leen a war a jàppale. ñu dellu ci mbéy mi. mais du mbéyum suuna ak gerte de. kese baax na nag waaw. waaye du boobu de. boobu du tax benn mbay bàyyi fi ay million benn mbër bàyyi fi ay millions. du ma sax bàyyi investir xaalisam. Mhm. ci domaine yooyu mhm. mën na ko cee def nag mhm. ndax am na foraat mais dëgg dëgg mbéy yi day jox xaalis daal waaw mooy mbéyum lëjum ak mbéyum fruit lu ci fleur ok ñaay bii boo fi demee gis nga ñaay ni mel bien sûr dëkkuwaay bi rek boo gisee xam ne fii ñi fi nekk yàlla waccu la ñu ngi ci jàmm waa dëgg la ci mbéy mi la jógee mais benn hectare nga mut ci am ñeenti million duy caaxaan. ci ñeenti weer mhm. loolu loolu kan du ko caaxaan déedéet wallaay <laughs> bien sûr ci benn hectare. ci mhm. ñetti weer donc. Mhm. hectare boobu ñeenti nit ba juróom minute mën nañ cee yëngu te bu ñu jaay. ku ne gis boppam. léegi mbéyum nawet hectare bi kenn du koy béy sax li mu ci am du am solo. dëgg la fi mu nekk nii. Mhm. récolté nañ. waaw na ñu jiyaat. actuellement nii ah oui. léegi danaan raar nawet ne léegi. waaw léegi moom day day kon xanaa kon mais noonu bu sedd bi ñu ngi béy léjum. waaw <laughs> ñu ngi béy ñu ngi béy léjum. la xeetu léjum mooy. wuute mooy wuute. waaw kon métier kay Babacar. Mhm. comme ni ma ko faral di waxee mooy yëngu bi nga xam ne. Mhm. yëngu ba moo ëpp congé ba. te loolu moo tudd métier. waaw loolu métier bu ñu nee fonctionnaire la. Mhm. wala nangam. Mhm. bu ñu liggéey fukki weer ak ñaar. Mhm. benn la ci la ciy am congé waaw. waaye congé xam ne congé ba moo ëpp. moo ëpp liggéey ba waaw. waaw dundee ci dëgg la bien sûr mbéyum nawet moom <laughs> liggéey loolu di dëgg la. kon métier dëgg-dëgg. Uh-huh. mooy yëngu bi nga xam ne. li uh-huh. ëpp sa jot. Uh-huh. ca ngay nekk ca ngay nekk. ma ne kon comme yàlla dogal na man la yàlla def mu jaar ci pièce ministre de l'agriculture. Mm-hmm. man yàlla def président de la République ma dénk ma ko. Mhm. ci bëgg-bëggu. ministre de la agriculture mhm. mais man war naa mën a def lu tax ba. Mhm. li ñuy def pour yeneen béykat yu ndaw yi. waaye ak yeneen kuréelu béykat yi. mais ñu def ko pour bëri. parce que ay jeunes lañu. ay sénégalais lañu. te li ñuy yëngu. mbéy mooy cosaan la. dëgg la ma li ñu euh, nguur gi dénk. mooy d' xam-xam bi. yee techniciens yi domaine boobu rek ñoo fi nekk. bien kon mën nañ leen ci tàggat. Mm-hmm. bu booba. Mm-hmm. muy benn ñaar. Mm-hmm. am na lu nguur gi di jàppale ñiy yëngu ci wàllu dër. bu boobaa jàppale boobu it ñoom ñu jot ca. muy ci wàllu jiw. muy ci wàllu engrais. muy ci wàllu matériel agricole. am na ñuy exporter. mbëri mën nañ cee bokk. ok jaay ay bitim réew France. Europe. en tout biir Europe. ci biir Afrique maanaam li li Sénégal yooyu di def. Mm-hmm. te te te wàcce wàcce rek lañ toppatoo. Mm-hmm. ak jàng loola. Mm-hmm. ñoom bu ñu leen gungee encadré dañ mën a def loolu. dinañ ko mën a def. te li tax dañ ko mën a def mooy. day toll foo xam ne baakat. wax dëgg yàlla mbir mi day am poraat. dëgg la. maanaam dinañ am ci wàllu cachet. waxuma sa affaire financement. parce que mën nañu dem aussi ci organisme yi parce que ay jeunes lañu comme yeneen jeunes yi. kuréel yi fii. président teg. muy ay kuréelu ndaw yuy financé ndaw yi. Mhm. mais mbër yi mën nañ ci bokk parce que ay jeunes lañ. ok donc kon mën nañoo am financement ci nguur gi. Mhm. mais mën nañoo li ma njëkk a xalaat d'abord mooy ñu réinvestir li ñuy gagné. Mhm. ci seen cachet. Hmm? dugal ko ci xeetu mbay. ci xeetu mbay maanaam maanaam su ma la déggee mbër yu mag yi tey. comme tey exemple sa xarit Ama Sène. wala benn Balla gay benn Modou Lo. mu ngi ah Ama mu ngi bay. waaw ñu ngi ah, ah, ah ñu ngi ci ëllëg tiit bi ñu ah ah mu ngi du dugal nga. Ah, waaw. waaw. maa ko jiitu ci mbay bi Balla mais yow yaa ngi leen di lance message appel pour que ñoom te seen xaalis boobu millions yi ñuy fay ko actuellement. ñu investir ko ci mbayu horticulture bi. moo tax il ma féliciter Balla. Balla waaw. vraiment. Mhm. Euh, rafetlu naa appel boobu nag nee na mhm. moom day il faut mu woon ndaw ñi ne mhm. mbir mi mbay mi la yow xam nga ne Balla am na ci lu mu jàpp waaw bien sûr waaw allah lamb teral na ko moom waaw mu ne day investir ko li ma wax nii mhm. dama ko dégg barki dem dafa mel ni dafa fekkee sa waxtaan quoi ok moo tax ma kontaan ci loolu su ma ko mënoon jot ko féliciter de vive voix kontaan naa ci bu baax macha allah mu ne dina investir ci mbay mi pour wan xale yi solution pour emploi des jeunes. Mhm. la ca ëpp. mooy mbay suivre naa presse bi. dañu ah, allah donc ma ma ma wax kon. Mhm. xam nga mën nañu ne jàppale. Mhm. kon ñu def loolu yëpp. ci produire. jaay fii ci dëkk bi. comme produire jaay bitim réew. jaay bitim parce que me lay doon bu wax. waaw ñoom ñëpp amul exception koo ci wax. Mhm. suñu dëkk mooy kër Samba. waaw <laughs> nga. tay ba. jeex na monsieur nga waaw waaw tay ba. suñu mag <laughs> waaw waaw euh, balaa nga mali fara. jeex nga reefan. booy ñang mu nga bool ama bal dee nga ku nekk ci ñoom am nga foo foo foo. waaw. valoriser ko. investir mhm. fa def fa forage. Mhm. wala teen yu ndox. Mhm. def système irrigation. ok jël fa ay ñuy liggéey. ñoom. loolu mooy nekk seen retraite. ok te retraite ci làmb. dafa gaaw. dafa gaaw à ah, quarante cinq ans kay yàggut. te des fois te voilà te des fois sax voilà te des fois sax sa voilà te des fois sax sa kii dina est-ce que di nga fa yegg am na te duñ fa yegg retraité. xoolal na. Ah, waaw loolu moom la loolu boo ko investir eh, Babacar. Mhm. mango yi di màgg. Mhm. légumes yeeg chaque année nga am campagne. Mhm. di di di jaay di réinvestir. mais ketal leen ko. ak dajale leen ko. boole leen ko doo ko mos a dégg. ndax ñooñu li ñu moom nag. mooy teraanga. ay la yéwén di des seen dund. man loolu laa gëm. loolu nga gëm parce que bëgg loolu lañ Sénégalais yi. yóbbu valeur boobu muy làmb ci Sénégal yóbbu nañ ko ci àdduna foo nga xam ne. ak bu nekk buntu boole sénégalais yi jàmm dikk àndandoo jàppante maanaam harmonie bi ak euh, cohésion bi ñuy indi sociale bi mu doon mm-hmm. tax na ba ñoom acteurs yooyu li ma gëm mm-hmm. mooy dañu war di teral mm-hmm. seen giir dund dañu di macha allah man loolu laa gëm na solo te comme xëy na nguur def ko yombul nit ñi leen sopp dafa leen ko yombul ñoom mën nañoo jaar ci li ñuy am defal ko seen bopp defal ko seen bopp. nguur gi. à mm. travers service technique yi comme ministère de gunge leen ci techniquement. Uh-huh. jàngal leen won leen jàngal ngeen xale yi ci war a àndal leen. Uh-huh. jàppale leen ci ay jumtukaay. Mm-hmm. mais bu ñu mën ko def Babacar. macha allah kon lii laa bëgg. Mm-hmm. mu doon ci waa lamb en tout cas. Mm-hmm. nga xam ne man lamb rek nga sopp. Euh, sama mu doon sama <laughs> participation. Uh-huh. naa ne participation président de la république uh-huh. ak bu ministre de l' agriculture et de l' équipement rural uh-huh. ci lii ci gunge uh-huh. jeunes yi waaye rawatina jeune lutteurs yi jeune lutteurs yi surtout jeune lutteurs yi donc euh, euh, loolu lañ benn genre convention lañ bëgg a xaatim macha allah pour pour mandargaal gunge bi direction de l'horticulture nar a gunge mhm. fiis mooy kuréel googu nga xam ne mhm. jàppale ndey yi mhm. dafa bëri ba ñu am ci lu ñu jàpp moo leen tax a jóg moo leen tax a jóg noonu lañ bëgg a gungeenteeg ñoom ba bëri gën a gis seen bopp ci li ñuy am jaar fi bu ñu jeexale seen carrière mbër mën a dund normal macha allah léegi léegi fi may jeexal ak yow parce que loolu leer na nañ léegi li ma fi may jeexal ak yow mooy combat boo xam ne amoon na fi bu yàggul ñaar ñi ko doon bëre defe naa ne kenn kii moom kenn du wax sa diggante ak moom muy Eumeu seen sa xarit la ki ci des moo ko sa soxna defe naa ne sa doomu soxna la muy lag de Guiers combat boobu docteur nu ngeen ko dundee ci kër gi Eumeu Sène ak Lac de ak coow li ci topp après yàgg yàgg yàgg liis nu ngeen ko dundee. <laughs> déjà ko. seetaanu ko tax. waaw euh, parce que daf dafa daf daf ma diisoon ba nga xam ne. Uh-huh. gëm. Mm-hmm. avant mm-hmm. ah, yow. ba fi mu nekk nii da nga gëm ne ëmb du moromu lag ok waxoon nga ko Lewis. <laughs> waaw. ah du taxaw fenn ça ah maanaam du bëre pour yow mais est nangu na loolu nga wax. Liss nangu na <laughs> ah dinaa jox micro bi mu tontu de dina tontu de parce que mu nekkul fii ah. kan. <laughs> waaw waaw waaw ci pour ngeen toog seetaan ko mhm. waaye nag mhm. eh, nga moom ay ay ah. nag docteur ëmma bëri wala làgg bëri nag daa ni làgg làgg la est non docteur gars yi nag nañ la fa am moom au moins la ko def. ama dégg nee na gars yi nañ daa taxaw rek de. mais gis ngeen gis ngeen gis ngeen ni muy def bu ko def mais mais est-ce que noonu la doon bëree. noonu la la doon bëree. ama bu taxawoon. waaw euh, lak bu taxawoon. waaw euh, kenn ko. Ah. non loolu lak <laughs> vraiment champion la ah. taxaw ci hmm. vraiment loolu moom. Euh, sob naa ba nekk porte parole <laughs> supporter yi. <laughs> yi mu am. Ah. parce que nag bu bëree keneen ku dul ëmma. Ah. ak ñenn sama gars yi. Ah. wax moom lay faral. ah lag ok euh, maa koy conseillé vraiment. du conseillé a sóoraale supporter yi. muy sóor supporter yi daal. mais est-ce que du blessure bi mu doon wax moo ko téye dina ne dafa damoon xaw ma loolu de la wax après. loolu yëpp. ah. ah. ah. sama champion rek mooy moom moom quelle que soit la situation mu assumé. Mm-hmm. Ah, moom moom lu xew. Mm-hmm. te yàlla dogal mm, lu baax rek la. Mm-hmm. mu nekk champion bu ñëpp ràññee. mais leen bu mu assumé. waaye chaque fois ngay trouvé ay argument daal loolu baaxul ci champion. amul mën naa la si làmb ba tey comme en tant que sa xarit. mën na continuer. Ah Hmm. te dafay continuer bu soobee day continuer waaw ah ñi ñi ko ñi ko ñi ko ragal waaw ñoo bëgg mu mu mu raccroché waaye teel na lool hmm. waaw pour yow daal li Eumeu Sène bi nga gis nii nga xam ko physiquement mentalement psychologiquement mën na continuer carrière am gis nga am ma bi mu sumee ko ah waaw man kay maa ngi koy gis maa ngi ko doon gis te ah, yow boo dee supporter doo ko wax non déet bi bi bi Eumeu taxawee ñëpp jàpp nañu affaire bi du du truc mais ndaxte day yàgg rek moo tax. Hmm. donc donc loolu la donc vraiment <laughs> mais maa ngi leen di ñaanal ñoom ñëpp. Uh-huh. yàlla defal leen vraiment à la suite de ça te lii vraiment bu amati. ma yow boo sañoon ñu bisaat ku quoi. waaw su su su hmm. ko xelal hmm. wax la. Ah, <laughs> Liss daal xam naa ne moom mu ngi dégg dina tontu man nag dinaa ko jox micro bi mu tontu mais léegi kon léegi loolu leer na naa ñu léegi euh, Balla Gaye booy Boy Niang boobu taxaw na de Gaston Mbengue nga ko taxawal. làmb dëgg. waaw mhm. waaw. bii mooy vrai combat. Euh, vrai combat du siècle. mooy Balla Gaye Boy ok mhm. euh, mhm. mais def na chemin. jeexalagul Balla. waaw waaye chemin bi mu def. Hmm. boo ñaa def. defa ku ko. maanaam ñaa defa toll ci digg doole. Hmm. nekk boo xam ne bu hmm. mu nekk vraiment fierté wu. yëpp ci wàllu la sax. Pikine waaw daal. bu ma. booy ñaa. tàmbali boobu. Mhm. la dara. dajeeg Balla. exactement. ok ci yoonam. ok. te du n'importe qui moom Balla. xam loolu il faut mu métti. kon loolu dana métti de. trop. loolu dina métti trop. loolu moom uh-huh. may ñaan uh-huh. euh, ko may leen. Mm-hmm. <laughs> maanaam ñu ñu ñu ñu ñu bëree naturellement. waaw ndax bu loolu amee uh-huh. nekk wax ay ci kanam ci Sénégal loolu kon foofa parce mm-hmm. ñaar ñëpp am xam-xam. waaw waaw ñoom ñaar ñëpp day bëri waaw. mën a bëri. Mm-hmm. munoo wax fan la ñoom parce que boo ne Balla. Mhm. da ngay ne moo ko njëkk ci làmb ji. Mhm. moo ko def chemin. Mhm. moo ko jiitu daal. moo ko jiitu waaw ci carrière way boo demee ci moom. toll fi Boy Niang de def li mu def. ak wane li mu wane. bëriwul ci champion yu mag yi. ñu ko def kon doo comparé talent ngay comparé mais doo comparé. Euh, jaar jaar yi que. Uh-huh. mais seen i talent daal jàpp nga ne ay talent moom ah, xam-xamu bëre moom neexoon neexoon nañ ci bëre daal parce que ku ci ak ci fit ak du ñu calculer ok parce mhm. mhm. mhm. def day ñëw rek xëpp ci kaani dëgg la vraiment lamb <laughs> ah, ah. euh, bi man neex la Mm-hmm. ñu nekk ci seen bonne santé mm-hmm. ak seen confiance mm-hmm. euh, sëriñ si euh, bu mu ci jàpp bu feeñ rek pour ñu mën a bëree normal bëree normal ndax keroog euh, Sénégal yi kontaan man tamit kontaan naa ci yow waa Vox Arena ak Equivox yëpp kontaan nañ ci yow yaakaar naa sa drapeau itam sénégalais yi moom ñu ngi koy sóoraale bërki dem rek Bécaye mbay wax na ci muy combat franc ak Tyson 2 boobu yaa ko moom moom boobu moom defe naa yow lañ ko njukkale te te Equivox wala Vox Arena juumuñu ndax li tax loolu mooy ku ne xam na ne sénégalais nga boo xam ne da nga gëm sa culture di doomu Sénégal comme ni ko Père Bekaay waxee kera boobu tamit ban la ban message nga ci lancé eh, nit ñi ban ban appel nga ciy lancé ci lu gàtt rek muy Tyson de franc nga xam ne drapeau bu yow yaa ko moom. wax nga dëgg eh, Babacar jërëjëf ci laaj boobu loolu neex na Mhm. ci biir xale yi. Mhm. franc lu nekk def na ko. Mhm. Tyson 2 naka noonu. ñoom ñëpp ñuy sama ay euh, rakk. xanaa wax sax sama ay jarbaat. donc ma kontaan ci làmb ji. ndax li mu doon ñaari champion yooyu. waaye aussi bëgg ci ci li ñu ma ko. tudd donc ma am ci nag mbër. moo tax ah ci ñoom ñaar ñooñu. koo mhm. xam ne sama mbër la. Mhm. donc. Mhm. Euh, moo tax euh, diis na ma lool. ndax xale yu yu ma sopp la ñoom ñaar ñëpp. dëgg la donc su ma sañoon. ah làmb moom. Euh, xëy na du ma bëri diw sax. bokk bokk ci ñu ko bëgg lool ci làmb. waaye léeg-léeg mu tiis lool. waaw mais mais nag sport la. sport la liggéey la rek. et puis affaire problème dëgg la maa ngi ñaan suñu borom yàlla yóbbuñ ci jàmm. Uh-huh. may mm-hmm. merci beaucoup nga xam moo def affiche bu amee solo noonu. Mm-hmm. presque trois grands combats. waaw ah, cinq la sax cinq cinq grands combats. Mm-hmm. boo xam ne bu ci nekk rek. mun nga ko considérer comme grand combat. bien sûr euh, ay doomu Sénégal def ko. mais surtout ay doomu Saalum nga xam ne fa bokk. waaw ko bien sûr waaw innovation moom macha allah waaw loolu am na moom waaw waaw image yi moom waaw waaw bien sûr waaw ah, loolu moom yàlla dogal na ko moom image moom ah non image moom macha allah moom day non day set day leer. beneen bànneex la. amin ñu ci yoon yàlla na yegg. amiin ñoom jeunes yooyu yoon ci wàllu làmb. Mhm. yàlla mhm. allah am na solo yàgg maar kon kooku mooy docteur Macoumba Diouf tey nag ñu ñëwoon fii ci bureau am jël si ko liggéey liggéeyukaayam li lay wane nit moom lépp looy def rek na nga ci am fula ça veut dire que parce que loolu du lu may wax mais lu nit ñu bëri di wax la koo wax docteur Macoumba Diouf ah daf lay wax ne ku baax la ku nangoo liggéey loolu bokk na ci tey li tax mu toog fii ñu ngi koy ñaanal yàlla sa ndombo yàlla yàlla gën a yokku yàlla na liggéey yi gën a yokku parce que itam am nga yittey liggéey te jox nga liggéey cir et am nga ci doomu aadama yitte ndax yaakaar naa làmb moo taxoon ñu xamante hélas man ak moom mais depuis boobu ba tey muy moom muy soxnaam wala famem wax dëgg yàlla dañu ma téye comme frère comme rakk comme lépp te loolu lépp suñu liggéey la gisoon magnifié ko kon moom bokkul ci sénégalais yi nga xam ne dañuy ŋàññi làmb wala ci gis neneen non noonu non moom dafa gëm ni li suñu kirti la parce que tamit doomu Saalum la doomu séréer la ñu ngi kontaan ci yow di ñaanal yàlla ñi ñuy seetaan yàlla defal leen jàmm defal ko bépp doomu sénégalais yàgg mar moo ne woon ci cadrage bi hélas moo ne ci montage beeg logistique bi kon di béggee ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di wax ne tamit mbëri message bi mu leen lancé bàyyi leen ci xel jamono ji ngeen nekk seen kare di fayee ko ay million defe naa ne baax na ngeen ñëw lancé wu ci mbayum horticulture muy mbayum dër pour ëllëg ngeen mën a am loo xam ne bu ngeen bàyyee kenn du leen ketal kenn du leen nangamal te loolu va kër mi yor micro bi sax dinaa ñëw mu jàppale mu utal ma tool comme aw ma doole am tool moom mu fexe ma am tool may bay ndax am naa ay tool fële ci ak yaay du mën a ñàkk yàlla na ñu fa am jàmm yàgg maar